yow bi bëgg tisi bu rafet wala nga yor boutique bëgg a jënd jaayaat demal Pikine marché sànq fekk fa waa Njaay Jesner. bi ni baxa la. bien cristal la. rafet na fees na motif bees tàq la aussi. jaune or bi.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 ndeysaan Mbaye Kalom production moo fi woote tirage bi commencé na ci poids lourd Mamady Ndiaye moo ñu woon Kanda mooy bëre noonu son premier combat armé ngoo yaa mee gara moo di lum ñaan la na yaay boobu boy te dëkkeen koor jigéen waa koo koy camenu mbayang lum moo di lum la sandar mu bëgg nañ ko di bëgg seeri mbayang lum papa seen bay alxuur waaye sama combat bi maak moom maak Papa Sène combat force poids eh, eh. nee naa leen ñeme naa ko biir bu rëy rek la ma ëpp maa ko bu doole maa ko dax a bëre force poids eh. Mamady Ndiaye Thank you. Modou Diop Diori mooy bëre ponkal bi eh saa waay eh bañal waay tuuti eh waa kii moo xanaa du yombee noonu kay. delluwaat na fa de jotu na ko Ndiaye bébé Ouz Karambaji Kalmundoor Ada Boy Bawol Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye war na ko ndombo bébé daan na Mamadi ada boy ball garam Mbagnick mundur Garam menyekal mundur ada boy ball. jàppante nañ ngemb Siteu taf galgal lonkum biti zongole lu na xaj na fi Kalmundoor Ada Boy

Mbagnick loxo yoo jot dugal ba càpp ca gannaaw Sélé Mélé be ko saaw Ada Boy Baol Calm Ndoor Grand Mbagnick lim jàpp bu baax la daan Ada Boy Baol Papa Mbissine say na de Birame Mbissine say na de Birame Mbissine laaye Birame Mbissine yaram bee laaj lamb eh aca Birame Mbissine moo yëngal oh ndeysaan yaram daw na waa CNG ñoo tee licence am

Birame Mbissine na saya de waa kii nañ ko jox licence am waay kii xale la lamb la yaakaar saay ne nee naa leen daa bokk si lamb soo ko puwaat sele Sélé Mélé mu ngi seetaan Grand Mbagnick mu dugal loxo jàpp attention Sélé lim Kara tibb na Kara war waji tata sele wele sele nene ali ko moy jinni saara cay papa jam teeri jël na ko arbitre jam teeri Sosokh jël na avertissement léegi Sosokh papa ngaan la la xayla la Final finale poids lourd. Garam mundur mundur nggak Sosok. Garam banyak papa kok, Papa nggak jenis eh. Garam banyak sosok orang kondom. daan na ko du très bien fait. deuxième demi-finale noonu diggante bu Sinja ak Radiakhé bu Kër Fodé.

Petit Ordi ak Olympique bu ca gannaaw Petit Ordi ak Olympique bu mucc ca gannaaw ñu ngay bëre lu neex Moussa Ndiaye bu bari Sini signalé na arbitre Moustapha Ndiaye Siny faxat na ko mu rëb ah Siny bu Bombardier mën a bëre daan na ko Siny en final cey mbaru dadi wi dadee ngi noonu day yëngal le day yëngal le waaw waaw cey doomu Bombardier wi ak wala pit daan na ko ordi arbitre sifflé na final raw gadu diggante Pape bu Bari ak Malem Niani numéro 2 Pape moom ñëwoon gannaaw Malem Niani la jàkkaarlool fii ci terrain gaal gi rythme be wane ne day gaaw wala dañuy sóob daje ca tànk ya na ko tànk laa ilaha illa war na maa leen ñaani war na ko ndam arbitre paa mu xolal père jógal foofu ñu mun a caméra lu leer Pape Ngom mii neexut a de lu leer laa leen wax jóg na ay waay lumière bi ku ne kekk foofu takk na ko aca arbi sible na final poids léger Seny bu Bargny ak Olympique bu Mbouck diggante waa Buj ndeysaan boo waxee Buj sa xel day dem ci Fatou Gueye yal na ko yàlla yërëm ndeysaan fi la nekkoon di ñu bégal ci lamb ji Siny bu Bargny Lébu Ndoye Maly Maram Ndoye di bégal Lébu yi seetaan Lamyn TV yëpp waa Ngor waa Yoff Wakaam waa Soumbédioune waa Caaroy waa Yara waa Mbaaw waa Bargny waa Yeen waa Ndayane waa Ñangal waa Ciki waaye waa Somone ba fule bu nekk rek siyaar nañ Olympique Sine Sine Olympique Arbitre avertissement pour Olympique gis naa pour suivi ku ne am nga benn góore wuñu da nga dem nañ ñu temps ba ñu war bi suble waat eh, faqat na ko sini njëkk ko Siny fa mu jàpp baax na da koy bës bu ko daloon ak door tànk loolu moo mun ne da koy bëtt de laay laxa ee Siny koy bës wala pik bañ na droit kële USB yaa ngi noonu ah képp ku bugg déglu ay son lamb yu neex Mbayang Loum Ndeye Fatou ak keneen ku mun a doon son yaa ngi ci biir 10 000 francs lañ koy jaayee voilà ay lu mot presque 300 son 285 son lamb moo ci ne nga def ko sa oto dégloo ko Dakar ba Mali du jeex nga def ko sa kër wala sa place di ci déglu 2 jours du tax son yu jeex kon amateurs yi commandé leen ci 77 804 86 84 wala 77 779 aca ndeysaan final baa ngi noonu fii ci terrain Gaal Gui le 25 février 2024 ndeysaan élection yi teel la war nekk Macky Sall puus ko ñu ngi xaar date bi ba tey jàppaguñ ko diggante Papa Ngagne Sosokh la ak bébé Ousse bu Sinja Mbaye Kala moo fi woote woon Mbaye Kala production 3 millions la tegaloon mbëri Papa Ngagne Sosokh Desa heure bi waroon naa fekk ñu naan li tata si wone diw gañe na élection yi wala deuxième tour leer na waaye ñu daal di pousse élection ya tas yaakaaru sénégalais ya yaa yaa ko ndeegu a kono yaar waa cukkandee laar bébé Ousmane ñu woon rouge noir la Saint-Valentin Sossokh ee waay laa ilaaha illallaah Bébé Ouss bi neexul biir at bi tax na avertissement Sossokh Mbarou Saliou Faye la seni Saliou Diop Faye bëgg naa ko ndeysaan waaye Lamine Sarr doomu ngaan la arbitre siise Lamine Sarr mu nga ca États-Unis maa ngi koy ziar Papa Kane Papa Kane Papa Kane daan na ko quatre